wajalilaayi maskani Tuubaa misras mi abijaayi xayri man abaat Touba ca kanam mbokk yi wax nañ leen ne Touba dëkk bu mag la waaye dëkk buy màgg la màgg gu gaaw ci ay nit ak ci yaatuwaay commission sociale bu tubaa ca kanam ci njital Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké moom Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallilou commission sociale ñu ràññee leen ci seen taxawaay ak seen yitte ci taxawu doomu aadama yi nga xam ne nii dañoo néew doole ci wàllu dund ci am paj ba ci ay ordonnance commission sociale bu Touba ca kanam ci seen doxu nemmeeku gi nga xam ne nii doon nañ ko dox ci ñeenti xible yi fekki ñi nga xam ne nii dañoo bàyyi seen lépp ngir Serigne Touba ñu fas yéene leen a taxaw ci li ñu fekkee mbokk yi nga xam ne nii ñoo nekk tawfeex bu so waaye ñii nag am nañ tawfeex mbokk yi xool leen yii dëkkuwaay mbokk yi nga xam ne bu bët sebee ñu jaaxle bu tawee ci ndox mi lañuy fanaan ak seeni njaboot bu ngelawee kasaali ko noonu commission sociale sumbaat liggéey bu yees bu am ci taxawu leen ba tabaxal leen ay makkaan yu mucc ay mbokk waaw tabaxal leen ay néeg ak wanag loo xam ne kat lu néew ci li nga xam ne doomu aadama mënee su ko ñàkk ay néeg yu yaatu yu mucc ayib ak ay wanag yu baax mbokk yi gannaaw liggéey bu sell bu mbokk yi nettalikat ci làmmiñu boromam ñii waa commission sociale bu Touba ca kanam fekk si tabaxal leen seen màkkan yi ana lu ñu wax maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu Cheikh Moutala di ko sant ndaxte bi mu ñëwee fii di nu yóbbu si ay ndimbal fii ñëw bi mu ñëwee mi nu fekk ci ak euh, jaaxle ndax booba suñuy dëkkuwaay doy na waar ñu doon xalaat nawet bi ñoo sunuy xale ndax metti woon na lool daaw bu masaa xiin dañuy tiit ñoo sunuy doom bu fanaanee taw bu bët setee suñu weeree su xiinaatee moo moo moo ñu tawtewaat ba tooy di weer moo nu ci jële kera taw bi bi muy taw ma nekk ci biir boobu noonu santaat naa ko bu baax sama doom ji mu safaa seen dafa jóg ni jërëjëf sëñ moo talaa ndax dañ daa taw te duñu nelaw ba bët set jot néeg bi da daa waaj a daanu duma xam nan laay def sama xale yu songu ma néeg bi waaj a daanu duma am fenn fu ma aw ma jaaxle loolu nag moom nu ci jële fa mu nu jële fa mu nu jëmee ko gën bu du woon ak moom xawma fu nu jëm fii métti woon na torop trop trop ndax ndax depuis daaw maa ngi fii ak samay doom ñi si des sax dama leen dénkaane woon kenn ki sax fan yi la ñëw kenn ki sax moom fan yi laa ko dem jëli mu ñëw mu metti woon torop depuis si sëñ Moustapha ñëwee nag ci koor gi ba léegi ñun amatul benn jafe-jafe mu ñëw fii bépp teraanga boo xam ne rek ñun ñu waa doomu aadama yelloon na ko rek lépp lañ fi indi lépp ba si korite gi sax li ma gën a sama xol feesati sax mooy korite gi ñëw sama waa amuñu woon lu ma woon jënd sax ginaar ma ñëw fii tombeek soxna af sama na ma sëñ Moustapha de وتبسر في اليتامى دواما عسهم بي آباءهم كل حين mbokk yi xam ngeen ne lii nag mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi xol yi fees nañ rongoñ yu tuuru nañu ndaw si xel mi dem na ci fi nga xam ne ni fa la ko Touba ca kanam ak waa commission sociale jëlee ak fii ñu ko indi mbokk yi kon mbokk yi commission sociale daal lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir te ku ci def kat yaa ngi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax fa la ñu yem bi ñu ñëwee ci quartier bi fekk nañu fi ñoo xam ne ni seen yitte yëpp ndox la mbokk ndox de xam ngeen ne am na njëriñ lool ndax ndox kat boo ci sangoo naan ca xam ne ndox moom am na njëriñ Touba ca kanam ne danañ leen ñoddil ndox mi indil leen ko indil leen ay robine mbedd waaye indi ay robine ba ci seeni biir kër ndox ma ball xol yi sedd guy ñaan yi jolli. ndaxte lii itte woon na woon naa ko trop muy ndox mi dama daan xëy suba di dukkat ba sama wet yi di metti keroog ba ma leen di ni leen ndox laa bëgg taxawu dañ maa xëccël ba ci sama biir kër ma di leen ci sant lool nag di leen ñaanal Tuubaa ca kanam yàlla na yokk ba yëg ko ci barkeb sëñ Fàllu maa ngi leen di ñaanal ci barkeb sëñ Tuubaa fa ngeen bëgg a àgg yàlla ngeen fa àgg. kontaan naa sama xol sedd na ndax la ma bëggoon defal ngeen ma ko maa ngi leen di ñaanal nag fa ngeen bëgg a àgg yal na ngeen fa àgg ndax yéen da ngeen di jóg rek di liggéeyal nag sëñ Touba yal na leen sëñ Touba fay. waxoon naa leen ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi commission sociale ñëw na tabax ay dëkkuwaay ci ñoo xam ne dañu ko yitte woon lool ak i wanag commission sociale ñëw na indi ndox ak njëriñ li nga xam ne moom la ndox am. waaye mbokk yi li ci gën a yéeme mooy lii lépp ngeen di gis du ñaari téeméeri de li jaayante la mbokk yi lu waaye am lu waay mën ñu ànd jàppalante ak néew ju doole yi waaw jaayante ci la commission sociale dajale li mu liggéeye fii yépp mbokk yi waaye it mbokk yi ñi nga xam ne ñooy ouvrier yi moo xam ñuy maçon yi moo xam ñuy kat yi ba ci plombier yi ñoom kat dañu ne Touba ca kanam ak commission sociale duñ ñu gën a goree ñu nit sunu xam-xam lañ am dañuy jaayante bu ñu kenn fay dërëm. nous les plombiers nag disponible nañ ci lépp loo xam ne lii ñi ngi koy def ci ngir dëkku Serigne Touba bi fas nañ ko yéene ànd ak waa Touba ca kanam ak n'importe képp koo xam ne ki yaa ngi liggéeyal Touba ca kanam plombier yi Touba disponible nañ pour àndante yow liggéeyal Serigne Touba loolu moom jekk nañ ci bu baax a baax ak mbooloo mi nu àndal ñëpp suñ jëwriñ di Baye Mouhamadou jaañ ak ku mel ni Baye Dame Guèye ak ca topp ñëpp kenn ku ci nekk lépp loo xam ne lii mooy liggéey bi daal. ñoo nekk ci kanam luñ ci yëg dinañ ko wax dinañ ci def suñu kéemtulaayal kàttan ñu ngi leen di ziar di woo nag képp ku dëkk tubaa moo xam ouvrier la moo xam habitants yi la nga xam ne ñoo dëkk ci biir dëkk bi kenn ku ci nekk am nga sa doole def ko ci am nga sa wërsëg def ko ci ngir yàlla ak yonente bi Sëriñ Touba pour tubaa jëm ca kanam Touba jëm ca kanam du tubaa Touba ca kanam dong ñoo ko moom ñëpp ñoo ko moom. mu mel ne na gis ngeen liggéey bi ni mu mel maçon yi fi taxaw itam dañ fiy liggéey ngir jëmi Sëriñ Touba rek. di woo suñu bokk yëpp nga xamee ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci maçon daal ñu ngi lay tàllal loxo di ñaan ci barke Serigne Falilou nga ñëw fii jàpp ci bu baax baax jaayante ci ngir jëmmi Serigne Touba ndax kat jàpp naa ne Touba ci kanam lépp lu ci waay def sa bopp rek nga ko defal ndax kenn ku ne xam na ne taxawee ci dëkk bi ak ak li feggu dëkk bi yëpp ah ñu ngi leen di ñaanal nag suñu borom yokk xewal yi baax ak wér ba lépp loo xam ne yéen nañ ko liggéeyal Serigne bi suñu borom defal leen ko bu njëkk bi rek lañ dogu woon jaayante ak Sëriñ Tuubaa ni bis buñ defaree néeg bi daal ñun ñoo koy peinture fas yéene nañ ko tamit àndee kook ñoom noonu fépp foo commission sociale Touba sa kanam dem daal fas yéene nañ faa ànd ak ñoom dem lépp lu ñu defar rek jaayante ko defar ko ñun ñu jaayante ko suñu xam-xam bu ndaw bi ñu am defar ko ndax loolu moo ñu war ndax euh, jàpp naa ñu ñun ndaw yi Sëriñ Tuubaa lañ taalibe Sëriñ Tuubaa lañ kon lépp lu ñuy defal Sëriñ Tuubaa rek war a jiitu waaye waruñu caa mujj Ah, di woo sama mbokk pentrikat yëpp nag du ko defee ak ouvrier yi képp koo xam ne si ne rek jàpp nga ni war nga dooleel Touba ca kanam rek nga ñëw ci def sa yéene ak sa xam-xam ak sa métier ak sa ngëm-ngëm ak sa bëgg sëñ Touba ndax ñun loolu dong la yam amuñu leneen sa dëkkam bu tedd bi fi lañ jàngee métier def ci leb ba ciy jariñu kon war nañ ko cee jariñ moom tamit te lii rek njariñ la ndax ñi koy yaakaar jóge ci àll ba ñëw dëkk si fi ngir lan ngir Serigne Touba rek ak jaayanteeg moom gëm ko yaakaar naa bu bu waa Touba ci kanam ñëwee def wàllu social bu mel nii di ci yëngutu kon ñun dañoo war a ñëw def si suñ kàttan ak suñ lépp lu ñu man ak lépp lu ñu am sagam amuñu alal kon xam-xam bi ñu am ak doole ñu am nañ ko ci def. kon nag mbokk yi commission sociale bu tubaa ca kanam mbokk yi ñu ngi tàllal loxo ñëpp mbokk yi ndax lii kat ñàkk cee bokk wóorul waaw ana jàmbaar yi ana jàmbaaru fàkk tëdd yi nga xam ne nii du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg ñu ngi dem penku di jëm sow di dem bët gànnaar di dem bët saalum ngir lan ngir saytu ak nemmeeku ñi uyi si woote Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul te yittewoo lépp ñooñu ñoo ñaan ñooy commission sociale commission bu mag bii nga xam ne ni lenn ci bànqaasu Touba ci kanam yi la ci njëtal Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké moom Serigne Abdoul Fattah moom Serigne Falilou di liggéey liggéey bu rëy ci commission bi ak mboolem waa commission sociale rawatina nag mbokk yi waa diaspora bi ñu lu jàmbaar yooyu ba xam ana lu leen indi ci barab bii mbokk yi. te tey nag ñu ñëw fii ci taxawaay waa social ci ndi ci njiitul Sëriñ Mourtada Mbacke moom Sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne moo jiite commission sociale bi eh, ñu ñëw fii ci Tawfekh Boussa eh, tànk yi tànk yi nag lu mooy bi ñuy recensé ci koor gi dañ fee ñëwoon gis fi ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo bàyyi seen lépp yaakaar seen jubaa ñu fekk leen ci fekkin doy waar woo xam ne. ci ay mbaar lañ dëkkoon nga xam ne ñoom wax nañ ne bu taw bi daan taw bu daan taw ñëpp dañuy maase di fanaanee toog bët set wicc eh, yàlla def na nag mbokki taalib yëpp engagé wu ne nañ leen defaral seen néeg yi ba yàlla def na ñu newoon ci sànc yi ba ba mu def na àgg na tey jii karo yeeg yëpp ñëw na ak matlaay yëpp ñëw na kon nag ni ñuy def mooy dañuy joxe suñu kilifa sëñ Mourtala suñu dafa mu mu mu leeral mbokki taalib yi dëgg dëgg liggéey bi ak taxawaay bi gën a soññ mbokki taalib yi te ñuy woo jullit yëpp rawat na nag ñëwatu suñu Tuubaa gépp rawat na suñu mbokk constant yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu xam daal képp koo xam ne da def lu baax wala képp koo xam ne euh, bëgg nga engagé wu ci image yi ñu wane mooy néeg yi boo jokkoo ak si Mourtala moom sëñ bi mii mën na laa indi ci Tawfekh Bousso wala fu mu mën na doon ci dëkk bi ci commission sociale war koo taxawee euh, bu ko defee ñu ñu ànd ak yow liggéey bi. Euh, fii ñu nekk nag muy Tawfekh Bousso comme ni ñu ko xamee bi ñuy def recensement bi ci euh, jamono yi koor gi fii la ñu woon ba agsi bi ñu fi agsi tamit xamuñu woon fii fan la waaye biir agsi lañ ko laaj ñi fi dëkk ñu leer na ñu fii Tawfekh Bousso lañ la tudd booba nag euh, nekkuwaay xawoon naa doy waar lool ca lañ waxee nag ne danañ jéem a def suñ kemtalaay kattan ngir fexe ba ñu am ay nekkuwaay rawatina ci nawet bi di ñëw ca kaw loolu nag bokki taalibe yu bari jàpp ci am ñoo xam ne ñoo jaayante seng yi am ñu jaayante yeneen jumtukaay yi ba yàlla dogal na ñi nga xam ne ñoom lañ njëkkoon a jël noppi nañ ci ñoom ku ci nekk fexe nañ ba góor góorlu ba defal la benn néeg ak mbaar ak ay toilettes xëccal lam ndox ndox mi itam sori woon na ci barab bii waaye xëcc nañ ko fii lu toll ak 230 mètres wutal nañ leen tamit ay mel ne ay robinet bedd ak ñi nga xam ne soxla woon nañ ay ndox ci seen biir kër yi ñu yóbbu leen ko fa loolu lépp nag ay bokki taalibe yu nekk ci réew mi ak yu nekk ci bitim réew ñoo ci dugal seen loxo ba tax mu mën a jàppandi ndax comme ni ko ñu bëri xamee rek commission sociale ci biir Touba Ca Kanam la nekk waaye dafa am cërub boppam ndax ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj murid bu nekk ci weer wu ne loolu bokkut ak li nga xam ne noonu la commission sociale di doxee waaye commission sociale ab jaayante la beneen ci biir Touba Ca Kanam jamono ju nekk ku ci nekk yaay seet la nga la sa kattan may nga di ko ci dugal loolu nag ci la ñuy taxawoo nit ñi seen wàllu wér-gu-yaram waaye ci seen wàllu dundin ak ci seen wàllu dëkkuwaay yàlla dogal na nag ñii ñooy ñin njëkk a noppi waaye mool yee ngeen gis ci wet gi yeneen barab lañ bëgg a euh, tàmbaliwaat tey jii ci bëccëg gi am na ay kilifa yu fi àndaloon ngir ñu xool fii ñoom dañoo bëgg sasoo yenn ci barab yi man koo man ko def kon ñu ngi ciy woowaat bokki taalibe yëpp fi ñu baaxoo jaarale seen i addiya ak fi ñu baaxoo jaarale seen i jaayante rek mën na ko faa jaare di sant waa Touba ci kanam gépp waaye di leen sant nag ci turu commission sociale waaye ñun ñun dañoo nekk ci kanam nii rek waaye eh, mbir mi liggéeyub mbooloo la waaye du liggéeyub kenn kon cant gi ñoom ñëpp lañ koy jagleel di sant waa diaspora bi baax a baax a baax ñoom dugal nañ seen loxo ci liggéey yi baax baax di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex te ya saxal ñu ci bëggug sëriñ bi. yaakaar naa ne gis ngeen image yi weesu da gisaat image yii nga xam ne it moo fi amat loolu rek doy ni ko sëriñ Mourtala waxe ndax ku ne xam na ne ñii laaj nañ dimbal lool ndax dañoo jaayante Sëriñ Tuubaa jóge seen dëkki maam nii ko murit yëpp defe te seen loxo jotul seen ginnaaw kon muriti Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne yàlla jox na leen teraanga teñ gëm Sëriñ Tuubaa wóolu ko xam ne kenn ku ne la nga yor Sëriñ ko moo moo ko fa def ak fu mu mën di doon loo ay mën a yor rek xamal ne war ngaa sant Sëriñ xam ne Sëriñ Tuubaa la ko jox kon nag ñooñu daal laay woo ñu xam ne fii day li alquran wax wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayri tajidu inda allah loolu doy na sëkk te yaakaar naa ne lu def lu ne sa bopp nga ko defal kon nag kenn ku ci ne na nga jaayanteeg Sëñ Tuubaa yëmul fenn nag ndax ku ne xam ne ne lii moom ay ute koy def ndax ciment ci jiitu mu laaj seng ak ay karoog ay bunt ak lu ci ne daal murit yee ko yor ba ci kii ci mujj yoroon xale yi képp nga xam ne fii mu toll nii kontam 5 million nga ca kër ga am na la lam war a am lépp ci courant am ko ci ay tabax looloo taxoon ñu di ko wane mooy sababu wane ga kon Serigne Mourtala mii ñu ngi koy jaajëfal ci turu commission sociale ak bokk taalibe yi mu ko àndal di xamle ne daal képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngay wuyo te yàlla man loola nga yor dara fii daal lu fi waay def moom du du jëm suba Sëñ Tuubaa dala koy fay jooni jooni lay doon. numéro baa ngi nii 77 914 26 68 Orange Money la foo toll mën nga cee taabal sa yéene wala boog ci numéro compte bi di UBA te ngeen gis ko ci suufe écran bi mbokk yi commission sociale. ay jàmbaar lañu mbokk yi kon nag na ñëpp ànd ñëw ñu jàppale jàmbaar yi mbokk yi ba lépp lu waay manqué ci dëkk bu sell bi nga xam ne ku fi ñëw sëriñ Bamba tax nga ñëw fi kon lu ñu la defal sëriñ tubaa lañ ko defal lu ñu defal sëriñ Touba yàlla sunu borom lañu ko defal jërëjëf Serigne Touba jaaraama Touba ca kanam waaw góor commission sociale bu Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat